jaajëfal yéen ñi suivre chaîne bi di Ahmadiyya bi di leen dalal ci jàngatu bés bi ci sunu jàngat bi weesu ñu ngi leen indiloon taarixu état de la cité du Vatican ba jotoon nañu andi anam yi nga xam ni moom la sosoo ak lenn ci li nga xam ni moo ko mayoon boobu dayoo bu ngeen visiter sunu ay vidéo di ngeen ko ci fekk tey ñu bëgg wax itam ci empire bi nga xam ni daanaka moo mayoon doole jàngu bi wala église bi muy empire byzantin wala dawlatul byzantiyin ci làkku arab nga xam ni moo nekkoon deuxième rome ginnaaw bi nga xamee ni dooley empire rome yi tàmbali na sooxe dañu ci indi ay leeral dañu wax ci làkk yi nga xam ni moom la àdduna miin jamono ji ci yan anam la sosoo dañu wax itam ci seen mujj ñu di sàkku ci yéen ngeen may ñu nopp te dégloo ñu xel ñu di ñaan itam ngeen abone ci chaîne bi te activer cloche de notification bi ngir ngeen di mën di jot ci suñuy jàngat saa su ci li nga xam ni moom la historien yi andi empire romain moo meññi empire byzantin empire romain boobu biir ital la sosoo Rome di capitalam ci atum moins vingt-sept laata yonent Yàlla Isa alayhi salaam di judd xeet yi nga xam ne moo fa nekkoon itam ca boobu jamono yi may bëgg a lim la les Étrusques ñoom ñu ngi bàyyeekoon Asie ñoom ñoo occupé woon au nord grec yi tam ñoom ñoo occupé woon au sud de Rome ak Sicile yi Sicile buñ ko waxee mooy île bi nga xam ni moo gën a rëy ci mer Méditerranée bi nga xam ni benn pont moo doxoon digganteem ak itali amoon na itam yeneen xeet yu fa nekkoon bokkoon ci latin yi ñoom ñëpp ku ci nekk yoroon sa làkku bopp. ginnaaw bi empire romain yi defee huit cent ans de guerre maanaam huit siècle ci lañ tàmbalee noot àdduna bi tàmbale ci Italie ba li ko wër. ci atu 146 jàpp 200 ci la nangu woon Espagne boobu jamono Andalusi la woon ginaaw gi ci atu 1237 ci la ko jullit yi dal di coloniser Ahmadiyya defoon na taarix boobu bu ngeen visité sunu ay vidéo di ngeen ko ci fekk. bi empire romain yi coloniser Espagne ak li ko wër dal di siy teg Tunisie boobu jamono moo représenté woon Afrique du Nord gépp bi mu nangoo Tunisie itam dal di leen ci teg Turki boobu jamono itam ñu doon ko wax Asie ginnaaw at yooyu mu nanguwaat siri ak li ko wër ak moritani nga xam ni historien yi wax nañu ne jamono ji mooy fi réewu Maroc nekk te boobu jamono itam maanaam deuxième siècle jàpp troisième siècle amoon na luñ daan wax romanisation ak latinisation romanisation boo ko déggee mooy ne empire romain yi localité buñu nangu dañ fay imposer seeni loire teg si ñooña di verser impôt ci at mu nekk waaye taxul ñu imposer seen làkk kon boo déggee latinisation rek nga xam ni non seulement dañuy imposer seen seeni loi waaye tamit dañuy imposer li nga xam ne mooy seen làkk muy latin ginnaaw bi loolu amee ñu seetlu ne làkk yi xew jamono ji ca yooyu jamono la tàmbali woon ndaxte empire romain yi localité bu ñu mësaan nangu instauré fa seen làkk noo def rek ak jaxasoo dal di am ba mujj gi làkk yooyu originalité bi mu amoon dootul ko dootu ko am looloo waraloon ñu daan dégg latino germanique maanaam jaxase làkku latin ak làkku allemand yi niki noonu gréco latin muy làkk grec ak làkku latin boo ñëwee ci Afrique du Nord boobu temps mooy Tunisie nga fekk fa latino celtique bu ñu gënee xóotal daañ ci indi ay leeral ci làkk yi nga xam ni moo ci juddu ñu koy faral di waxtaan waxante suñuy biir empire romain nag daal dina yaatu yaatuwaay boo xam ni taxoon na empereur bu ñuy wax Théodose laata muy faatu da ko xaajoon ñaari xaaj Théodose moom la ñu wax ni moo njëkk jël diine christianisme def ko diine état daal di koy valoriser mu séddale empire bi ci ñaari doomam yi Flavius Arcadius moom la jox empire romain bu orient bi nga xam ni ginnaaw gi lañ changé tur bi def ko empire byzantin capitaalam nekkoon constantinople wala constantiniya ci làkku arab seen làkk nekkoon latin ak grec médiéval nga xam ni bi ko turki yi nangoo ginnaaw gi ci atu 1923 lañ ko tuddee istanbul di capitale bu turk beneen wàll bi nekkoon empire romain de l'occident muñ ko joxoon doomam bi ñuy wax Flavius Honorius Rome moo nekkoon capitalam seen làkk nekkoon tamit latin kon ñu gis ni empire byzantin bi nga xam ne moo waral suñu jàngatu tey noonu la cosaano empire byzantin ñu daan ko wax itam romani wala ruum mu ngi feeñ bi empire bu mag bi tase tur bi mu ngi bàyyeekoo ci byzance moo njëkkoon nekk turu constantinople jamono ji muy fël itam mu ngi tombeek bi allemand yi di def révolte dal di songu empire romain côté occident bi mujj gi seen empereur bu ñuy wax Romulus Auguste di seetlu ni seen doole tàmbale wàññeeku mu dal di jël empire romain bu occident bi di koy delloo cosaan te moo di fekk ji empire byzantin wala empire bu orient bi comme ni ñu ko waxee sànq loolu mu ngi tombeek le 4 septembre ci atu 476 ci noonu la Constantinople di nekkee deuxième Rome nga xam nettalikatu taarix yi wax nañu ne bi empire ottoman yi daanelee empire byzantin yi Russie moo doon revendiquer ngir nekk troisième Rome capitalam nekkoon Moscou waaye laata ñuy àgg foofu dañuy woyal ba tey ci anam yi nga xam ni moom la fi empire byzantin nekke woon amoon na seen benn empereur bu marqué woon seen taarix bu tuddoon Justinien premier moom lañu wax ni dirige woon na lu toll ci trente-huit ans ci population bu toll ci 19 millions d'habitants nga xam ni ca boobu jamono lu metti la woon moom it bi mu faloo mu tàmbaliwaat di attaqué ak di foqati suuf yi nga xam ni jëloon nañ ko ci ñoom ñu ni daanaka lam fay nekk yépp ci ay guerre la ko passé ñu daal di tàmbali itam li ñuy wax romanisation waaye bi yoon duñu wax latinisation ndax empire byzantin làkk grec lañ daan wax mu amoon itam xeeti làkk yu bari yoo xam ni daan nañu ko wax boo demee lu mel ni Italie ak Afrique du Nord ak Espagne ñu ngi doon làkk làkk romain yi muy latin ak grec bi ak yeneen xeetu làkk yoo xam ni historien yi peut-être tudduñu ko waaye boo demee ci ci Anatolie bi wala al Anadul ci arab ñu ngi doon làkk làkku Thrace illyrien ak dialecte albanais daan nañu wax itam irano-turc serbo-croate Eh, armenien persan arab ak berber bi roi Justinian ñëwee itam ci dafa instauré lu ñuy wax la culture hellénique boo ko déggee muy genre constitution boo xam ni bari na luwaa yu bari yi ñu appliqué jamono ji foofu la bàyyeeko ñu daan ko wax itam code Justinien mën nañu wax ni moom moo réglementé empire byzantin boo demee ci côté religion itam ñu gis ni dal dina boolewaat église yépp doon benn muy église bu orthodoxe bi nekkoon ci grec yi côté orient bi ak église catholique bu Rome bi nga dem ci lu mel ni art ak lu mel ni génie civil maanaam wàllu tabax ñu amoon base lañu buñ jëlee exemple ci lu mel ni basilique Sainte Sophie muy église orthodoxe bu mag bi nekkoon Constantinople nga xam ni ñu ngi ko tabax pendant la quatrième siècle waaye ginnaaw gi lañ ko soppi jàkk ci atu 1453 bi ko turki attaqué. mooy empire ottoman bi waaye itam ci diir bi mu fa nekk yëpp moom Justinian population bi daal dina wàññeeku ba àgg ci 7 millions te mu ngi tolloon ci 19 millions d'habitants jamono di gën a dox yeneen làkk di juddu lu ci mel ni làkk yi nga xam ni peuple germanique yi ñoo ko daan jëfandikoo lu ci mel ni français bi castillan di làkku espagnol niki noonu catalan portugais itam ci la juddu florentin itam muy presque làkk bi nga xam ni moom la peuple italien yi daan làkk kon ñu gis ni taarix bi taarix la boo xam ne bu yàgg lool la booy xool mooy taarix bi gën a yàgg ci àdduna cumulé ay génération yu baree bari sunu jàngat bii da ñëw lañ ko bëgg a jeexal mu war a focaliser waat surtout ci séparation bi amoon ci diggante église yi ak li ko waraloon ba ci ni empire byzantin di daanoo ci atu 1453 kon mbokk yi loolu moo nekkoon jàngatu bés bi di sàkku ci yéen ngeen bañ a fàtte abonné ci chaîne bi di leen jox dig daje incha allah ci yeneen jàngat